الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله
فإن هم الرزق قد أكل قلوب الخلق وسيطر على الأقول وعتلوا من أجله ما كلفوا به يقول المولى جل وعلا في محكم التنزيل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi comme nin ko xamee nin ko gisee ci jamono fa inna hamma rizq qad akala alqulub wërsëg alal ju ne gaañ dafa lekk xolu doomu aadama yi nit ñi tey ci bëggu alal ci sàkku alal ak wër alal jaral na leen ñu sóobu pexe yépp pour am alal dugg ci bunt yu araam yi yi daganul yi yàq sa diine li yàq sa ngor yàq sa jom dox sa digganteeg sa boroom li ci ëpp ci doomu aadama yi ci ut alal sóobu nañ ci yoon yooyu faaleetuñu lu leen yàlla subhanahu wa taala wax sàkku alal qad saytarat alal uqul fatt na ay xel ak ay xol kenn dootul xalaat baax na wala baaxul dagan na wala daganul am xalaal am xaraam kenn xoolatul nu ma amee rek naa am rek naa am loolu rek tey mooy mébétu doomu aadama yi ci loolu la nekk ba fàtte li taxoon yàlla tabaraka wa taala bindunu ci la nu lem jaamu yàlla yi teg côté laxas ko kenn ci ñun xoolatul ni muy jaamoo yàlla waaye déedéet li muy xool mooy naka laay def ba am alal naka laay def ba alal jooju mu bari naka laa koy gérer mu yokk guddeeg bëccëg par minute par seconde même bu la jaralee yowmal qiyaam nga dugg safara nga dugg safara benn waaye dafa dem ci benn xërëmkat ne ko dama bëgg nga def ma ma nekk borom alal mu ne ko mën naa ko de waaye boo dee da ngay dem safara mu ne amul problème mu ne ko demal nga indil ma ginaar mu dem indil ko ginaar mu ne ko demal nga faral ma ay matt mu faral ko ay matt mu ne ko taalal matt mi mu taal ko mu takk benn téere takkal ko ginaar gi ne ko jëlal ginaar gi nga dugal ko ci biir safara si waaye jël ginaar gi muy dund mu dugal ko ci safara si ginaar gi lakk ba jeex ba matt yi jeex téere bi lakkul mu ne ko jëlal di nga am alal waaye boo dee safara nga jëm waa ji ne amul problème foofu lan toll tey ci ut alal moo tax nga gis làmb ji ba ñuy sulli ji ay néew di damm ay yaxu néew fekk ku dee nga sulli ko damm ci yaxam yóbbu wala nga sexal ko dara wala nga takkal ko dara bàyyi wunu dara léeg-léeg sax nga gis ci jigéen ñi ku takk téere boo xam ne foo dugg ci maternité yi wala foo dem ci kër yi ñuy ngénte liir bi day dee balaa ñu koy tudd wala buñ ko tuddee tabare tamit day dee ñu wax la ne boo ci reyee nangami liir da ngay am alal allahu akbar xoolal alal ni mu gëlëm loo nit ñi tey xoolal jullit bi dem nekk góor jigéen pour am alal xoolal jigéen ji jaay boppam pour am alal lu nekk rek mooy nanu am ñu fàtte nag li taxoon yàlla bindunu te mooy al ibaada jaamu yàlla ixwatal iman doomu aadama yi bi sàkku alal lekkee seeni xol ak seeni xel fatt ko ba gisatunu yàlla ñu soxlawoo am di fàtte fàttelu ëllëg danañ taxaw ci kanamu borom bi alal jooju nga doon dajale doo dugg aljanna doo dugg safara lu dul danañ la ci laaj dërëm bu nekk fistin bi foo ko jëlee foo ko dugal yonente alayhi salaatu wasalaam mu ne lan tazuula qadama abdin yawma alqiyaama hatta tusal an arbaa xisaal an shababihi fima abla an shababihi fima abla wa an umrihi fima afna wa an ilmihi maza amila bih wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na nit bu dee cëpp yowmal qiyaam ñu laaj ko ñeent sa ndaw ci loo ko ràppal sa dund ci loo ko jeexal sa xam-xam loo ci def sa alal foo ko jële foo ko dugal ñetti laaj yu njëkk yi bu nekk benn laaj la laaj bu mujj bi mooy alal foo ko jële foo ko dugal te tey bu ñuy ut alal faalewunu fu nu ko jëlee dagan na wala daganul fa hajaba dunya aw fa hubbu dunya la yakunu illa wahmin lu waral nag ci sàkku alal jooju mooy bëgg àdduna kese naa fi am kër gu kenn amul naa fi yor ay soxna yu kenn yorul naa fi yor naa fi yor ba mu jeex tàkk loolu rek moo tax ñuy daw di kër këri ci alal jooju xoolal barki démb li ngay dégg ci gaal yi nangami personnes yooyu ñuy wax ñëpp dañoo dee ci géej gi ñi ci ëpp seeni way jur ñoo lay ñoo jaay seen alal ñii seeni kër lañ jaay ñii seeni jur lañ jaay ñii seeni takkaay lañ jaay jox ko seen doom yooyu pour lan pour nanu dem uti alal wala pour nan dem uti xam-xam jaamu yàlla pour nan dem uti alal gis ngeen li nu alal jural ixwatal iman wa xamu rizq loolu di yittewoo wërsëg moom la nu dugg moom la nu soobu ba bàyyeetunu benn bunt bépp bunt boo xam ne dagan na wala daganul buñ ci jaaree alal ji ubbeeku bunt boobu gaa yi fëgg nañ ko waaw su fa nit ku ragalee yàlla nekkee naan leen sax lii daganut kenn dootu ko faale waa jooju mooy ki ñu gën a bañ ci société bi wa qiila lil imaam alxasan albasri radiyallahu anhu wa ardaahu yaa imaam maa sirru zuhdika fi dunya al imaam alxasan albasri dañ ko laaj ne ko yow imaam lan mooy sa sekkere dëddu adduna lu tax nii nga mel nga mel ko lu tax nga baax lu tax nga nekk nit ku ragal yàlla lu tax nga nekk nit ku bëgg yonent yàlla muhammad mu ne leen sama sekkare dëddu àdduna day ci ñeent mbir la nekk ñeent mbir ñu ne ko ban mooy bu njëkk bi mu ne alimtu bi anna rizqi lan yaxuzuhu gayri fatma inna qalbi sama wërsëg bi ma leeree bi ma wóoree ne ci loxoy yàlla la nekk kenn du ko jël sama xel dal njëkkanteetuma waaw bi ma wóoree ne sama wërsëg lamma alimtu anna rizqi bi yadillah lan yaaxuzu gayri fatma inna qalbi ba ma leeree ne sama wërsëg li ma yàlla rëddal ci sama jëbi ne moom laay am bi ma juddoo ba keroog may dee sama wërsëg boobu ci loxo yàlla la nekk kenn du ko foqar ñi mu ne sama xel dal sama conscience tranquille allahu akbar loolu mooy iman nga xam ne yow li la yàlla wax ne lii ngay am lii ngay dund fii ngay toll nii ngay mel nii ngay nekk su la loolu leeree nga noppalu kon dootoo njëkkante ndax li yàlla ne yaa ko moom kenn mënu koo foqar ci jox ko jox jox la yàlla rek ni mu ko rëddee noonu lay ñëwee ci sa loxo kon sa xel war na dal loolu bokk na ci li li dalloo xelu imaam alxasanul basri ba mu dëddu àdduna xëccootul demul uti lu araam toog di liggéey yàlla li mu wax ci moom mu ko fay fekk si mu koy fekk ñu ne ko yaa imaam ma lan mooy ñaareel bi ci say secret yi tax yow imaam nga dëddu àdduna mu ne bi ma leeree ne lamma alimtu ba ma leeree ne anna amali lan yaqumu bihi gayri fastagaltu bihi ba ma leeree ne sama jëf sama liggéey kenn mënuma koo liggéeyal mu ne ma liggéeyal ko sama bopp sama jaamu yàlla yi sama julli kenn mënumaa jullil allahu akbar dinaa la jullil waaw léeg-léeg nga gis ku dëgër fit ne gars yi bàyyi leen julli amul problème yowmal qiyaam dëgër fit li yonent yàlla muhammad ñemewul woon di nga gis Sénégal ku ko ñeme chaque jour woote yaa ngi yokk mbooloo yaa ngi bëri ku la ci gën a dëgër fit nga ni kii la lu yonent yàlla muhammad ñemewul woon keroog bi sahaaba bi ne yonent bi yonent bi xool sahaaba bi ni mu ko ni ni ni sahaaba bi bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko ba yonent bu simmee daal yi rek day daw ngafar ñu daal yi jël bokk yonent bi xool ko ba ci àgg yërëm ko ne ko waaw yow ñaanal waxal loo bëgg rek ma ñaanal la yàlla may la ko waxal loo bëgg ma ñaanal la yàlla may la ko allahu akbar suñ ko waxoon kenn ci ñun waxal loo bëgg ñu ñaanal la yàlla may la waaw ñun mën naa am R plus 5 naa am limousine yooyu la ñuy ñaan aduna sahaaba bi bi ko yonent bi waxee loolu mu ne yonent bi asaluka murafaqatuka fil janna maa ngi ñaan maa ngi lay ñaan nga ñaanal ma yàlla nii ma àndeeg yow ci àdduna yàlla def ma ma àndeeg yow noonu biir aljanna yonent bi ne loolu de mënuma ko waxal leneen mënuma laa dugal aljanna de waxal leneen sahaaba bi ne man bëgguma leneen lu dul loolu ànd ak yow aljanna rek mu ne ko ainni ala nafsika bi kasarati sujud da ngaa bëgg dugg aljanna mu ne waaw mu ne ko del sujud lu bari maa del julli lu bari del julli loolu tax imaam mu ne lamma alimtu ba ma xamee anna amali laa yaqumu bihi gayri mu ne fastagaltu bi ba ma wóoree ne sama jaamu yàlla kenn mënumaa jaamul yàlla kenn mënumaa wooral kenn mënumaa jullil kenn mënumaa ajal kenn mënumaa defal lenn lépp maa koy defal sama bopp mu ne ma occupé ko def ko kenn du ma ko defal maa koy defal sama bopp ma defal ko sama bopp allahu akbar ndeke jaamu yàlla kenn mënu la cee remplacer waaw tukulóor yi nee na ñaaman ñaamataa ko yaranam yarataa ko ɗaanonam ɗaanotaa ko saa wi neɗɗo yo ɗaanone atam pay kono kanko ɗaanoto an a ɗaanotaa ko saa yi neɗɗo yo ñaamanam ñaamanam kanko o ñaamay haa haara o yara ndiyam makko o lelo o ajjoone oyi alhamdulillah an joroɗa to aɗa heyɗa sone benn waay lekkal ma du dem moom mooy lekk ba suur jaaxaan ci kaw lalam raay kollam ne alhamdulillah yow xiif di la rey doo suur de nelawal ma du dem demal ma duus du dem yooyu kay yaa koy defal sa bopp naka noonu jaamu yàlla yow dong yaa koy defal sa bopp kenn mënu la cee remplacer imam nee na ba ma wóoree ne samay jëf kenn mënuma koo defal kudul man mu ne ma soxla woo ko lamma alimtu anna allaha ñu ne ko lan mooy sa ñetteel secret bu tax nga raw mu ne lamma alimtu anna allaha mutalliun alayya fastahyaytu an uqaabilahu ala almasiya allahu akbar ba ma wóoree ne yàllaa ngi may sëpp fu ma nekk yàllaa ngi may gis fu ma dugg yàllaa ngi may gis fu ma nekk gisu yàlla mu ngi tegu sama kaw mu ne ma rus am kersa di jàkkaarloog yàlla di ko moy la hawla wala quwata illa billah lamma alimtu ba ma leeree mu wóor ma këŋ anna allaha mutaliun alayya yàllaa ngi may gis fu ma nekk mu ne fas fastahyaytu rus na an uqaabilahu bilmaasiya rus naa yàlla gis ma ma nekk ci bàkkaar mu wóor ma ne mu ngi may gis allahu akbar xoolal mbokk yi fii ci ñun tey kan moo bëgg nga nekk sa salle de bain di sangu keneen gis la kan moo bëgg nga toog ci baawu cabine cabinet benn waay gis la kan moo bëgg nga nekk ci sa digg kër def yàlla mu neen futteeku am ku la gis kenn ci ñun bëgg ko waaw kon naka ngay nekkee ci bàkkaar nga bëgg yàlla di la gis su la wóoree ne yàllaa ngi lay gis allahu akbar te foo nekk yàllaa ngi lay gis de foo mën a nekk yàlla yaalamu xaainata al ayun wa ma tuxfi sudur laa yaxfa alayhi sheyun fi l ard wala fi lsama aynama takunu wa huwa maakum mu ne fu ngeen nekk maa ngi ak yéen waaw ku mel noonu nag nekk ak nun guddeeg bëccëg du nu am kersa ci moom di ko moy guddeeg bëccëg di fetteerlu lenn saa yi sax nga gis koo xam ne li muy def moo ko tey fang la koy def ñu naan ko saa waay yaa ko def nii mu ne waaw maa maa waaw mu ngi nii de moo tax yowmal qiyaam su jaam bi ne tëll ci kanamu yàlla bokk na ci li ko yàlla di duma ñàkk kersa gu mu ñàkk kersa yàlla waaw su bët ne ana lil xaraami nazartu li araamoon maa ko doon xool gémmiñ ne ana lil xaraami akaltu li araamoon maa ko doon lekk nopp ne ana lil xaraami samitu li araamoon maa ko doon déglu loxo ne ana lil xaraami lamastu li araamoon maa ko doon laal tànk ne ana lil xaraami masaytu fi araamoon maa fa doon dem malaaka bi nekk ndeyjoor ne ana katabtu man mi maa ko bind malaaka bi nekk càmmoñ ne ana shahadtu man mi maa ko teewe woon bi ko waaji di def may seede bi yàlla ne ana araftu wa shatartu xamoon naa ko ma nëbbu ko waaye tey laqad istadda gadabi ala man qalla hayaauhu alayya tey sama mbugal sama mer dina nekk ci képp koo xam ne dangaa nekkoon ci àdduna ragal nit ñi ñàkke ma kersa man yàlla rusoo ma woon wala imam alxasanu albasri mu ne lamma alimtu anna allaha mutalliun alayya ba ma xamee ne yàlla mu ngi ne fang jàkkaarloog man fastahyaytu an uqabilahu bilmaasiya ma am kersa ci moom lool ma jàkkaarloog moom di ko moy moom yàlla subhanahu wa taala mbokk yi foog ñu rus yàlla foog ñu xam ne ñun ay jaam lañ foog ñu xam ne dañoo ñëw ci àdduna pour liggéey bi ñu laajee al imaamul bas xasanul basri luy sa ñeenteelu secret li tax nga ragal yàlla li tax nga dëddu àdduna mu ne lamma alimt anna al mawta yantaziruni fa attu zaada li liqaai rabbi lamma alimt ba ma wóoree ne anna al mawtu yantaziruni dee mi ngi may xaar wóoree ne dee mi ngi may xaar mu ne faattu zaada li liqaai rabbi ma préparé sama yóbbal pour dajeeg sama borom mbokk yi kan ci ñun fii la dee xaarul kan ci ñun fii la dee xaarul kan ci ñun fii la dee taxawul sa bundu kër sa fenêtre sa keppaaru lal di la xaar kan ci ñun al imam hasanul basri nee na ñeent yi bi ma wóoree ne lii moo may xaar mu ne moo tax ma dëddu àdduna bi ma wóoree ne sama wërsëg ci loxo yàlla la nekk mu ne ma noppalu bi ma wóoree ne sama jëf kenn mënu ma koo defal a defal ko sama bopp bi ma wóoree ne yàllaa ngi may gis ma rus jàkkaarloog moom ci ay bakkaar bi ma wóoree ne dee mi ngi may xaar ma préparé yóbbal pour dajeeg sama borom aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله بوكي تي الله تبارك وتعالى نون خمني ورسك ci loxoy yàlla subhanahu wa taala la nekk yàlla wax na wa ma min dabbatin fi l ard illa ala allahi rizquha amul lenn luy dukkat kenn du wax nit luy dukkat di dox ak ñaari tànk di raam di naaw di féey di dox lu dul yàlla subhanahu wa taala moo chargé wu sa wërsëg ak foo mën a nekk wa ma min daabatin fil ard la yàlla wax amul benn daaba bu nekk ci kaw suuf lu dul yàlla subhanahu wa taala moo chargé wu sa dund waaw li ngay lekk li ngay naan sa lépp ci loxo yàlla la nekk loolu bu leeree ne sa wërsëg ci loxo yàlla la nekk nga noppalu boroom xam-xam yaa ngi nettali qissatu xaatim al asam xaatim ku baax la woon ku ragaloon yàlla la kenn la woon ci nitu yàlla yi xaatim al asam daje na ak ay mbokkam huwa min kibaari saalihin ci ñi baax ñi mag ñi ci la bokk daje na ak ay mbokk jullitam ci benn keppaar ñuy waxtaan ñuy wax mbirum aju màkk aj màkk ni mu neexee tiyaaba yi ci nekk xéewal yi ci nekk place yu sell yi yaramam daa daw mu ne damay aji te amul dara amul lu mu dundee te dafa njaboot waaye waxtaan wi neex na gaa yëpp préparé nañ ne dañuy aji mu ne damay ànd ak yéen mu bàyyeekoo ci mbooloo ma ak xol bu tooy ak bëgg a aj mu ñëw këram dajale leen dajale doom yi ak jabar yi mu ne leen man de ren dama fas yéene aji jabar ji ne ko yow dag ñoo yab yow bu ñu xëyee bala ñuy ndékki problème la bala ñuy añ problème la bala ñuy reer problème la yenn saa yi sax noonu la ñuy fanaanoo nga naan dangay aji yow da nga am dara bay aji doom yi ne waaw papa wax nañ la dëkkwaay foo jëm doom ju ndaw ji ne leen caat bi ku jigéen ki ne leen bàyyi leen sama papa mu aji ndax sama papa du ñu wërsëgal yàllaa nuy wërsëgal ñu ne ko yow seytaane nga waaw yow da ñoo bëgg a jaxaseeg yàlla li mooy langage bi sénégalais yi yor soo leen ne yàlla rek ñu ne yow seytaane nga kii seytaane la nañ noppi mukk balaa yàlla di ñu àlla kii waaw noonu la ne boo leen ne yàlla rek ñu ne seytaane nga bala ñuy kontaan rek nga wax leneen lu dul yàlla suñ borom loolu la wax fa ida zukira allahu wahdahu izmaazat qulubu allazina la yuminuuna bil axira fa ida zukira min dunihi fa ida hum yastabsirun allahu akbar suñu borom moo xam jaam yi yàlla nee na bu ñu ma tuddee rek nga gis ñëpp seen xol yi di bañ di lemu nga gis kanam yi ñuul waaw waaw waaw lëndëm bañ xol yi di lemu di bañ parce que dañ ne yàlla kese yàlla nee na bu ñu waxee keneen ku dul man nga gis gars yi kanam yi leer gars yi kontaan xol yi féex xel yi ubbeeku parce que keneen la ñu wax ku dul man loolu alxuraan la yàlla bu mu ko waxee mu ngi ci téere bi ak a yàgg buñ ma waxee man kenn nit ñi mer suñ waxee keneen ku dul yàlla gars yi kontaan xaatim noonu la def ak doomam doom ji ne leen ndax sama baay lekkkatu wërsëg la wala mooy wërsëgalaate ñu ne ko sunu papa day lekk wërsëg mu ne kon kii wërsëgalaate mu ngi fi bàyyi leen ko mu dem soxna si ne waaw kon na dem li mu yoroon ci poosam mu daal di génne dépense yu ñetti fan aj ñaata fan la aj lu mu tuuti tuuti weer la moom mu génne dépense yu ñetti fan daal di koy bàyyi ci kër gi dem bi mu demee takk ay bagage am fekki mbooloo ma ñetti fan yi jot dépense ba jeex xale yi guruboo ak seen yaay ñëw ci xale bu ndaw bi ne ko waaw léegi nag yaay seytaane bi dépasse bi jeex na de te yaa ne woon sa papa na dem mu ngi nii nag jeexal nan tey ci torox nag lañ nar a jëm ndax duñ lekk duñ naan mu ne leen ma laajaat leen laaj sama baay lekk katu wërsëg la woon wala moonu doon wërsëgal ne ko sa pa sunu papa day lekk katu wërsëg la yàllaa koy wërsëgal mu lekk mu ne waaw yàlla moomu di wërsëgalaate mu ngi fi du fi jóge sama papa dem sama papa tukki waaye yàlla tukkiwul ñu ne kii kii de kii de bu ñu ko moytuwul dana nu alak kii de gis ngeen li mu waxati kii gémmiñam gi bu ngeen ko moytuwul foofu ñuy wax di discuter dépasse bi jeex na amatu lu nekk ci kër gi am ku fëgg buntu kër gi ñu daal di ubbi muy kenn kuy àndandoog buur asalaamualeykum ñu ne wa aleykum salaam ñu ne buur bi de moo doon tukki ñëw ba ci buntu kër gi sonn mar naan muy sàkku ngeen may ko ndox xale bi daw xool kopp bi gën a rafet ci kër gi gën a set mu raxas ko ba mu set tànk ci ndox daal di koy jox waa ji waa ji daal di ñëw jox buur bi buur bi bi muy naan ndox mi yàlla daal di def ndox mi mu neex buur bi naana naana naana naan ba pare ne waaw ndox mi moom neex na di kër gi këru kan la ñu ne ko xaatim al asam mu ne woo leen ko ma fay ko ndox mi dafa neex ñu ne ko moom nag wax dëgg yàlla dafa tukki dafa dem aj ki jëli woon ndox mi ne waaw man dafa dem aj de ndax dégg naa sax waa kër gi di waxtaan naan kër gi ration bi mu fi bàyyi woon dafa jeex buur bi daal di tekki ceinture or bi mu takkoon daal di koy ne lii moom dugal naa ko ci kër gi ministre yi mu àndaloon ku nekk daal di dem ci sa gafak daal di fay génne or joxe ci kër gi commerçant yi génne seen xaalis joxe benn commerçant bu mag bu buur bi àndaloon daal di jënd ceinture or bi allahu akbar allahu akbar ci saase am nañu dépasse waxuma la weer waxuma la semaine waaye ba ba ñuy dee am nañu lu ñu dépasse wax loolu dootul jeexati ba ba ñuy dee ñoom ñëpp ñu dajaloo ndeysaan ñuy reetaan ñuy ree ñoom ñëpp ñu dajaloo waa kër gi di ree xale bu jigéen ba moom dugg ci ruq di jooy ñu ne gis ngeen de ñun ba ñuy jooy démb da doon ree ñun tey ñuy ree muy jooy nañ ko laaj looy jooy ñu ne ko kaay mu ñëw ñu ne ko waaw looy jooyati léegi kay dund am na ci kër gi fii ba ba ñuy dee waxuma la sam papa ñibbisi waaye ba ba ñuy dee am nañ lu ñu lekk looy jooy mu ne benn jaam ci jaamu yàlla yi moonu xool bëtam yërëm nu sunu affaire yëpp baax bu nu yàlla xoolee nag yërmandeem fu nu jëm benn jaam ci jaamu yàlla yi moonu xool ci bëtu yërmande rek sunu affaire yëpp daal di baax kan moo leen xool ci bëtu yërmande mooy buur bi tekki li mu yoroon jox leen mu ne waaw léegi nag yéen sama waa kër bu nu yàlla xoolee nag ci yërmande fu nu jëm kon allahu akbar waaye waaye yal na nu yàlla xool waaye yal na nu yàlla xool ci bëtu yërmandeem yaa xayu yaa qayum yaa zal jalaali wal ikram lii mooy xew-xew waa kër xaatim al asam waaw moom xaatim nag lan mooy mbiram moom mi nga xam ne dafa tukki woon yorul dara waa kër gi mu bàyyee woon ak yàlla moom gis ngeen li leen yàlla fay waaye moom ci boppam nag léegi luy mbiram xaatim départ na takk ay bagaasam ànd ak mbooloo ma di aji amul dara bañ na ko sax ci mbooloo ma ca ginnaaw la nekk ndax amul lum lekk ñu dem ba ci yàgg rek ñu dégg caravane bi am ku yuuxu waaw ñu ne kilifa gi ci caravane bi jiit da koo mat kilifa gi jiit da koo mat ñu ut docteur ci mbooloo mi amuñu ñu ne waaw fii kan moo fi jàng alquran ñu ne am na benn waaju baax bu tudd xaatim bu fi nekk ñu ne woo leen ko ñu woo ko mu ñëw ñu ne ko sunu njiit bi day jiit moo ko mat moo ko fet loo ci mën mu ne na tàllal tànk bi mu tàllal xaatim commencé jàng alquran di tufli di mocc di jàng alquran di tufli yëf yi daal di sedd guy waa ji ne ko xaw ma lan la de waaye sa aj bi aller retour yëpp maa yor sa frais aller retour maa ko yor doo lekk doo naan sa xaalis denc ko maa la yoroon lépp allahu akbar waa ji bi muy jóg lan la yoroon wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu wallahi ku jàpp ci yàlla yàlla doy la xaatim léegi yëgul këram lu fa xew moom moom yoonam yàlla baaxal na ko parce que dootul jënd ration am na ku ko assuré lekk ak naan ndékki añ reer lépp nee na ko frais yi ci aj bi maa ko yor mu ne waaw léegi nag yàlla sama njaboot man moom sama mbir baax na xam naa ne yow la waaw léegi nag man sama njaboot laa bëgg a xam mu tëdd di nelaw mu gént ñu ne ko yàlla ne ko man ku defar sama mbir ma defar mbiram ku ànd ak man ma ànd ak yow tëddal nelaw ku defar mbiru yàlla man kaana lillah kaana allahu la képp ku nekk ak yàlla yàlla nekk ak yow kon nañ leen defar sunuy xol defar sunuy xel xam ne wërsëg ci loxo yàlla la nekk ëpp doole taxuta am alal bëri xam-xam taxuta am alal alal ci loxo yàlla la nekk yàlla mooy seet ku ko neex mu daal la koy wërsëg ar rizqu bi yadillah yunfiquha haysu yasha yàlla moo koy joxe num ko neexee te yàlla li mu yor du jeex walillahi xazainu samawati wal ard yàlla nee na maa yor magasin asamaan yi ak suuf kon jarul dugg ci lu araam jarul rey jarul naan jarul fen jarul sàcc jarul rambaaj jarul jaxase musidal fulɓe caggal yettude allah e julde e nelaɗo men mouhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sallam hande khutba men hande ko arsugu julɗo jiɗɗo dañde arsugu est ce que ina jara e makko o naata e laabi ɗi ngannduɗaa dagaaki mbela o daña jawdi heen sahaaji njiya e yimɓe ɓe jaaɗo e ɓen wiyeteɓe wileɓe hay goɗɗo wiyetaɓe sernaɓe en wiyay wileɓe mbiyamo min mbeɗe yiɗi mbaɗana kam jawdi hen waaji goto o yeehi e bilejo o wi mbiɗa yiɗi mbaɗanami jawdi o wima mbiɗa wawi waɗandema daña jawdi kono sa maayi ko jaygol paaɗa o wi mbiɗa yiɗi yomi naat jaygol yomi dañ jawdi tan o wimo yaadanam guertogal o yeehi o addi guertogal o ya addu leɗɗe o addi o wi huɓɓu leɗɗe ɗe o huɓɓi waaji o windi talkuru haɓɓe gertogal ngal o wimo ƴettu gertogal ngal mbaɗa e jeygol o ƴetti gertogal ngal o wedde e jeygol gertogal ngal sumi ha gasi ha leɗɗe ɗe gasi talkuru ndu sumani o wimo ya haɓɓu talkuru ndu ya ma dañ jawdi kono sa mayi ko jeygol paaɗa ƴeew hande yimɓeɓe ko ɗon ɓe tolni saabu yidde jawdi ɓe namdima al imam hasanul basri ɓe wimo an holko tagi waɗani holko tagi moƴƴuɗa holko tagi jiɗɗa nelaɗo o wi ko gueɗe nayyi nde gandumi arsigue mo allah windi e yeesam ngo hay goto wawa ɗum ƴettude arsigue o inani e junggo allah o wi ɓerdam deeƴi gandumi arsigue am hay goto wawa ƴettude so wona min ɓe wimo gueɗal ɗimmal ngal o wi nde gandumi gollam hay goto wawata kam hen luutade dewalam allah hay goto wawana kam ɗum waɗande o wi rewmi allah gollumi ɗum mbaɗanmi hooram par ce que mbiɗa andi hay goto wawa kam hen luutade ɓe mbimo gueɗal gongal ngal o wi nde gandumi allah nani yiyami kala ɗo gonmi o wi kersumi hollude allah allah yiya kam mbiɗa wone bakkat ɓe mbimo gueɗal neeɓal o wi nde gandumi maayde na fadami ndendinmi ka kam foof rewde allah pour faddemo subhanahu wa taala mbokk yi bu ñu jullee ba pare incha allah bu ñu yàkkamti am na benn mbokk bu war a dugg ci islam mu ngi ni toog te xam ngeen loolu lan lañ ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax kon bu ñu paree incha allah bi iznillah am na kuy tuub kuy dugg ci lislaam ñun ñëpp ñu fekkee xé tiyaaba ñun ñëpp ñu fekkee xéewal boobu yàlla subhanahu wa taala defal nu allahuma arina alhaqa haqan warzuqna ala tibai wa arina albatila batilan warzuqna ala ijtinabi اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة نصوحا وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله محمد جلين دولون فوف يوم نت رانين في يوم نت يوم فوف تخول دني جلي
الله أكبر الله أكبر أشهد أن